taxoon ñu bëri ne leen ma lu tax booba ak léegi waxuloo ma ne leen teewloo ñun suñu participer au débat public c'est que ñun ay journalistes d'investigation la ñu dañuy fexe lépp luy dëgg ñu woon ko Sénégalais ba ñu xam lii lan la ñu xam fu ñuy lekk seen tànk tout de suite damay alerter Sénégalais wax leen ni tey euh, bëri na ci fitna bi nga xam ne mu ngi ci Sénégalais réseaux sociaux yi ñoo ko créé li ko waral ay nit ñoo xam parce que dañu foog nous jouer dañuy wax leen euh, euh, l'irresponsabilité pénale parce que ñu ngi ci Nous wala ñu ngi dañu créer genre entreprise tey ku bëgg a nit ku bëgg a nit ku bëgg a ku en concurrence ak kenn avons benn marché nga bëgg mu perte ñooñu ngay woo yu ne leen sa xaalis ñu koy suba nañu

mooy indi fitna ci biir ay nit ñoo xam ne waruñu laa rek parce que ki ñuy wax sniper Jérôme Bandiaki bi ñu jël photo di ko tasaare te xamal nit ñi ni moo def lii moo def lii moo def lii luñ ci xamul mooy sniper grand frère am magam bu tudd Maxime moom dafay sëy ak benn sœur bu Fulbert te loolu ñoom xamuñu loolu Fulbert Maxime

ne leen saaga leen diw met leen mooy cible bi actuellement ñu liggéey ci cible boobu cible yi bari ku nekk jaar am na fi tey jii am na ñu naan euh, peut-être da ngay liggéeyal pour Macky Sall wala da ngay liggéeyal pour Moussa Fall wala da ngay liggéeyal pour diw Babacar Touré bu may créé ci lu tàgguma kenn lu ma ciy def du ci tàggu kenn mais dafa def nii man dama lu ma jomb ak loo xam ne dama ko ragal ak loo xam ne du ma ko bëgg bàyyi à l' comment Sénégal laay défendre Sénégal laay liggéey su ma amee benn preuve benn élément bu nga xam nit indil na ma ko ne ma diw def na lii ma enquête ma fekk ne lii ngeen may wax dëgg la dara du ma empêché ma taxaw wax ni lii moo moo xew lii moo xew mais dafa fekk ni tuuma yi ngeen di teg actuellement yi nit ñi di teg di ko inventé di ko teg ci nit xamuñu nit ñooñu la Adam xamuñu leen de Ève mais dañ leen joxoon nit ne kii mooy cible bi ngeen a attaqué sniper la signe bii tudd na neneen tudd na neneen tudd na neneen tey même pratiquement même même accusation bi nga xam ne ñu koy def ki nga xam ne mooy euh, sniper wala di ko defal keneen waxoon nañ ko euh, kenn la même les mêmes accusations porté woon nañ ko keroog bi ñu doon wax Sénégalais yi ne leen boo ko bàyyoon tàppale la bët loolu moo waral Euh, réflexe bi ngeen xam ne am nañu ko donc maa ngi dellu si wax leen ni dafa am nit ñoo xam ne dañu créer ñoom ne nañu entreprise de contrôle des masses de manipulation tey jii képp koo xam ne da nga bëgg a da kenn da nga waxal kenn loo xam ne du dëgg da nga bëgg kenn. da nga bëgg a inventé ñoom ngay woo nga leen di mooy missile bi boo ko ñoom ñu jël jël benn fen teg ko ci kaw de deru kooku duñu xam lan mooy conséquences yi seen yónnee ko ci ñu jël fen boobu yëkkati ko boo yi nga xam ne ñu yomb lañ bëgg ñu nekk ci internet yi reprendre seen waxi caaxaan yooyu monte ko dugguñ ko ci seen i site parce que ay vues la soxla mais vue boobu mais ñoom seen réussite

bés bu ma naree toog wax loo xam ne du dëkk bés boobu damay bàyyi bés bu ma naree défendre dana coupable ci quoi que ce soit je vais préférer ma noppi. entreprise la ñuy créé boo xam ne tey ay concurrence sax yu nekk bi tey ci ay marché te bu ñu bëggee marché bi euh, dañ ko bëgg a am mënuñu ko am seen concurrent jënd mu ñàkk marché boobu li muy def mooy dañ naan nanu woo suñu boo yi nekk réseaux sociaux

terme ni ñu accusé li may wax du pour sama bopp laa koy waxal li may wax c'est pour la stabilité de ce pays laa koy waxal wax naa leen léegi sniper li nga xam ne mooy relation ak famille Fulbert Sambou wax naa leen tey jii ñu xëy di leen inventaire ay yeneen information chaque jour ñu xëy jox leen bu bees chaque jour ñu xëy jox leen ni diw mooy ennemi bi diw mooy mooy mooy mooy mooy l'adversaire bi ngeen war a rey mais dinañu nekk ci erreur bi mel noonu waxoon naa leen bu yàgg bañ leen ñu leen jox leen ay noonu. man Babacar Touré je suis à l'aise avec tous les dossiers yoo xam ne dama ci wax doon ci wax mbokk yi dal leen ak ci sen sen YouTube kawtf TV international ginaaw bi bàkk bi daano ñu fassiyé yéene na jukkel kawtf yi fi jot a ruuse ci may wolof di la ñaan aussi nga dem abonné su fekkee abonné ko te bul fàtte bas kolas de notification bi pour vidéo buñ dugal nga man see jot